la régie alors c'est une am li que justement euh, euh, les sages du conseil constitutionnel décision est nga euh, décidément mm, le conseil constitutionnel est toujours au centre d'un débat sur le respect de la constitution et concernant l'éventualité de la participation mm, du président Macky Sall de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 25 février 2024 qui n'a ramené que Modi espère expert euh, Ndiaga apporte et éclairage allant dans ce sens ni euh, ki n'a ramené que Modi euh, Macky Sall le candidat à sa propre succession de choisir Yob ki n'a ramené que Modi di Amadou Ba pour daal di war de mën et battre campagne jëmale à élection présidentielle atoup 2024 ces informations yi nga xamni tam itam Ndiaga Sylla jot na mi ngi njot ni Macky Sall mu ne ko daal di gis mu daal di war a mën campagne ci côté eh, ki nga xamne ne que moo Amadou Ba ki nga xamne ne que moo di eh, mu daal di jàpp ni loolu su ko daal defee dafay daal di violer li nga xamne ne que moo la constitution sénégalaise en vertu du principe d'égalité entre les partis ou coalitions de partis mom japp na ni Macky nak su nekkoon mom moy dem euh, justement à sa propre personne dem li nga xam ne que moo di campagne yi euh, bëgg daal ko fi tegaat si atub 2024 la xel mën na ko nangu waaye moom euh, ki na xam ne que moo di ñaga si laa jàpp na ni Macky Sall campagneul Euh, pour succession bopam mais dafay campagne pour Kenen. par conséquent instant dafa am statut li nga xam que modi di président nekku sax un président sortant euh, ki nga xam ne que modi président Macky Sall battre battali campagne qui nga xam ne que modi Amadou Ba alors l'espère euh, mi ngi di def référence décision conseil constitutionnel bi nga xam ne itam jël qui avait statué justement l'affaire sur une similaire sur une affaire similaire sous la présidence d'Abdoulaye Ward. cette décision pas par Ndiaga la stipule également mu dal di japp ni li nga xam ne que modi di lu mel

lu ne mel conseil constitutionnel da koy daal di li nga xam que moo di interdire surtout li nga xam ne que modi 2001 deux mille un li nga xam que modi 29 avril donc jàpp na ni tam fu mu toll su beugé battre campagne contre ki nga xam que modi euh Amadou euh, su beugé battre campagne pour Amadou Ba il faudra aussi li nga xam que modi le conseil constitutionnel mu daal li nga xam que modi interdire euh, ki nga xam que modi le président euh, Macky Sall donc jamono jooju nak ñi xaar exactement li nga xam que modi cette décision il est explicitement interdit au président Mexal de participer activement à la campagne électorale de son candidat choisi Manu Donc, très carrément battre campagne euh, jëmale ci candidat bi nga xam ni itam moom la daal di fal jëmale si euh, présidentielle atub 2024 donc jàpp ni itam la décision euh, du conseil con du conseil constitutionnel dafa daal di interdire justement ki n'a xam nekk moo di Macky Sall mu daal di war a mën a battre li nga xam nekk moo di campagne en tout cas ñuy xaar exactement ana lan mooy daal jóge si boobu li nga xam nekk décision mais pour le moment selon li nga xam nekk moo di test yi ak article yi ak li nga xam ni itam jot nañ ko daal di arrêté fii Sénégal nag que li nga xam nekk moo di sortant bi amul. Euh, droit wala kon sax ko xam nekul nekul nekkul li nga xam ne moo di sa succession euh, keneen moo fa fay daal di ut amul droit daal di war mëna mën battre campagne ak keneen parce que bobu des statut gis nañ ko si ki nga xam ne modi di Maître Abdoulaye Wade si atub li nga xam ne modi 2001 jëmale ci li nga xam ne moo élection législative li nga xam ne modi conseil constitutionnel ko daal di aaye ma kon ki nga xam ne modi di Ndiaga Sylla nag mi ngi wo li nga xam ne modi le conseil constitutionnel en affaire de même jëmale ci ki nga xam ne modi di kaw président Macky Sall ci euh, campagne bi nga xamni itam sóobu na si ni daal di war mun koo jàppale ki nga xam nekk moo di Amadou Ba moom itam tey jii nag si yoon war nañ ko xaar fa a xam ni itam moo di sa diwaanu Kaffrine exactement alors. donc sans plus tarder dinañ daal leen ñëw si li nga xam nekk moo di suñu ay élément ta ñu daal ñëw si yaatageeg fam fatigue tout d'abord ak li nga xam nekk moo suñu premier élément nak moy li nga xam nekk moo Ousmane Sonko nak def na razia fa nga xam ne it mooy zaanu Ziguinchor ak li ka daal di wër man ñu kon nak bàtt na fa li nga xam nekk moo di campagne moom ki nga xam nekk moo Ousmane Sonko su nekkee pari de la mobilisation mu nañ japp ni réussir na mom ak ki nga xam nekk moo di kandaam di Bassirou Diomaye alors ñu daal di retourner en image par rapport ak li nga xam ne itam xewoon na fa nga xam ne itam mooy zaanu Ziguinchor Échalo, échalo. Échalo. Échalo. Échalo. Vamos, Rusi. Bromol. Bueno. mi ngi noonu nous sommes à Sédhiou le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi ngi noonu Sédhiou waaw président Ousmane Sonko ak président Bassirou Diomaye Diakhar Faye Sédhiou mi ngi nii c'est normal live bi di il fait très chaud appareil yi day jékki-jékki fay waaye askan bi génn nañ askan bi génn nañ très nombreux fekk si président Ousmane Sonko président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi ngi noonu mi ngi noonu Mimi Touré la Mimi Touré la Mimi Touré la président Ousmane Sonko ak madame la première ministre alors c'était la coalition Diomaye fa na xam ni it mooy zaanuk Ziguinchor comme ni nga gisee non si li nga xam nekk moo image yi man ni kon ki nga xam nekk moo di Aminata Touré yëkkati na yëkkati na fa li nga xam nekk moo di exactement du ñàkk itam ni daal di ñew euh, si nga xam nekk moo le discours bi nga xam ni itam Diomaye fay euh, def na ko à son à l'égard ki nga xam nekk moo di Ousmane Sonko euh, par rapport si confiance bi nga xam ni itam japp na ni moo ko daal di renouveler jëmale si mom exactement donc mbokk téléspectateurs yi fi mu toll nii nag ñi ngi si li nga xam nekk moo une semaine justement jëmale si li nga xam nekk moo élection présidentielle atoupa 2024 en tout cas nak les décisions yi euh, mingi ngi daal di de plus en plus exactement jëmale si li nga que di élection yi euh, sur le plan programmatique way tam ci bépp li nga xam ne que di plan du ñak itam dañ ko daal di yaatal euh, bu nek donc mingi non ki nga xam que moo di Ousmane Sonko fa nga xamni itam moo di sëtwaanu ko Ziguinchor la fa daal di an ànd faak li nga xam que moo di mbooloo mi waaye itam ki nga que moo di Fay aussi mingi fe fa génne li nga xam que di ay discours yu am solo du ñak itam ne ci daal di si nu mu gën alors donc Malinger 5 par rapport à Clien Ramneke la décision du conseiller constitutionnel Manu ni Bobatay.

Euh, pour li nga xam ne que moo élection législative yi man ni ko nag ki nga xam que moo Abdoulaye Wade conseil constitutionnel da interdire man ni ko et consort ñi ngi woon li nga xam que moo euh, justement euh, le même pour li nga xam que moo le conseil constitutionnel daal di war a interdire encore une fois ki nga xamné que modi président Macky Sall si nga xamné itam mu ko daal di waaj daal defal ki nga xamné que modi di Amadou Ba exactement donc image ya image yaa ngi noonu ngeen daal di gis exactement fa nga xamné itam modi di sa dowaanu ko Kolda ak gox yi ko gën a fasantiku tonk pour moo fana xam ne itam mooy zaanuk guddoomtu Ziguinchor ak gox yi gën a fasantiku man ni kon nag Ousmane Sonko tey jii mu ngi jox ne di daje fana xam ne itam mooy zaanu Kolda

les dix neuf candidats yi nga xam ni itam le conseil constitutionnel mooy daal di euh, valider jëm